bis bi nga xam ne yaakaar naa ne maanaam ñëpp moom lañ doon xaar bis bi nga xam te ne moom la waa àdduna bi yëpp te maanaam mu nekk mbégte ci ñun ci ñun ndax maanaam bis bi da ko woote da ko woote ngir ñu santale ko ci yàlla suñu borom kon ci xeet yëpp ci euh, jaamu yàlla ak jàng alxuraan ak jàng xasida ak bernde yaakaar naa ne buñ xeebalee kon ñu ngi ci wàllum jàng alxuraan bi ak xasida yi xam naa ci kanam tuuti danañ danañ danañ danañ jublu ci wàllu bernde yi comme comme ni ko suñu jëwriñ waxee léegi rek suñu maam Thierno daanaka kaddu yi sax maanaam matale woon na daal waaye xëy na dañ ñu ko yar dañ ñu cee wax rek pour ñu sànco ay kàddal waaye nag sant nañ Sëñ Tuubaa bu baax a baax bégg nañ ci bégg koo xamante ne nii yaakaar naa ne maanaam màggal ren gi moom jàpp nañ ne euh, màggal gënu koo kawe daal ci ci ci ci ci ci suñu tolluwaay moom jàpp nañ ne màggal mag màggal gënu koo kawe loolu moom suñu tolluwaay ñun fo ñun loolu loolu lañ gëm te maanaam njàngam alxuraan mi sell na njàngam xasida gi sell na ah, ñi ngi ñaan yàlla na yàlla na ko sëriñ bi nangul boppam ci barke Cheikhul Khadim ñi ngi sant bu baax a baax di am mbégte moo xamante ne nii mosuñu ko mosuñu ko am te it ñoo ngi ñaan ci màggal gi ni mu taw fexee ak ni mu ni mu ni ni mu sellee ñi ngi ñaan tawat gi nga ne moo nekk ci àdduna gi yàlla na ko màggal gi yóbbaale ci barke Cheikhul Khadim sant nañ Sëriñ Tuubaa bu baax a baax sant nañ sant nañ Sëriñ Tuubaa bu baax a baax maanaam lii jëf ji yàlla na ko sëriñ bi nangul boppam yàlla nañ ci dajeek ngërëmal Sëriñ Tuubaa sant nañ bu baax a baax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Cheikhul Khadim ñoo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom dolli ko taw fexal dolli ko yàggal dolli ko wéral ci barkat Cheikhul Khadim ba naa li nga xamante ne nii moom la mbébét sunu borom def mu eggale ko dund fi ay junniy junniy at ci barke Cheikhul Khadim tam ànd ko taaliba Serigne Touba yëpp ak njaboot Serigne Touba ak Cheikh Serigne Touba barke Cheikhul Khadim di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Gora ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxawaay bi daal jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Mame Thierno Amar ñu ñaan ñu ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa wàcc waay di la ziar ci biir safar bi di ci. non la di la ci ndokkeel di la ci ziar di ci laaj loo ci loo gis la. teewul màggale ko nii ndax daanañ ko defee xañ na ci biti te ñëpp mu ñëw waaye xañ na ren ni mbas mi demee ak mu demee ñëpp xam nañ waaye nag comme que sëñ bi santaane sëñ bi la moom moom lu ma def rek dinañ ko def te jàpp naa nii ñu ko defee bokk na ci ni ko suñ a bëri ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan jàng ay xasida moom séenee yendoo loolu nag moom mooy li sëñ bi woote woon ñu sant la ko nag sant moom jàpp naa ne ci jamono yi sax la gën a war ndax bu amee ci la sant war xañ bu lépp dee neex nga xam ni li nga bëgg lépp yaa ngi koy am ni ko bëgg di ko amee ne sant mën a ba nga xam ni yow ni nga ko bëggee xaj na amewoo ko noonu waaye teewul ngay ngay sant yàlla loolu mënees na ko jàppe sant bu dëkk konte nag ñu ñaan daal li nga xam ne sëñ bi santaane ko ci bis bi ñu dajale ceeg moom barkeb sëñ bi te yàlla sotti fa ay ci réew mi ñaanal sëñ Muntaxa suñ borom yàggal ko fi ndax wax dëgg yàlla euh, man kilifa la goo xam ne si bu jafe la ndax jamono jii xañ na mbooleem xew-xew yéeg yëpp euh, ñi ko jiite xañ na Euh, dakkal nañ ko mel ni daal boo gisee aj gi sax daanaka ñi ko jiite fi mu toll nii maanaam ñoom euh, dakkal nañ ko wala xañ na defewuñ ko nañ ko daan defee waaye sëñ bi ngëmam gëm ni xam ni maanaam jaamu yàlla moom maanaam jaam bi li fekk bakkanam mi ngi ci mi ngi am bakkan mi bakkanam mi ngi nooyi rek da ko war a def dara waru koo gàllankoor moom comme ni nga ko waxee rek maanaam virus bi jaamu suñ borom la ñuy jaamu suñ borom nag bu ñuy jaamu suñ borom taxee bu ñu jaamu jaamu suñ borom maanaam taxee ñu bàyyi jaamu yàlla kon xañ na kon loola kon moom gën nañoo demee kon nag moo tax bu nii ma ko defee nii wax dëgg yàlla nu tawfeex la ñu yàlla suñ borom yàggal ko fi te yàlla mu dund jiite ñu ay ati at yu bare bari te eh, màggal gi suñ borom sotti ay xéewal ci réew mi te jële fi mbas mi barke borom daal ñu ngi ziar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. amiin ñaan ñu ngi lay ziar di la jox sa wàcc yooyu itam di la yàlla na sëñ Tuubaa taxawu baax si affaire waa sëñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàcc yooyu itam ñu ñi ci màggalu safar bi ci màggalu. sëriñ Touba bi ñu la ci laaj yow noo gisee ak jamono ji tombeel muy feebar wi ak maanaam xam ne fii ci Argentine kenn ku ne yaa ngi ko defee sa kër koo woo rek mu ne ma damay safar damay màggal fii ci sama kër soo mënee ñëw nga ñëw fii koo fi woo ci Argentine na ko dama bëgg nga ñëw santale ma sëñ Tuubaa ci li ma mën a mën a gënooma koo bëgg muy tiijaan di laayaan di xaadir ñëpp kër goo dem ñu ngi ko fi màggal ñu lay laaj yow ci màggal gi yow loo ci xalaat ak loo ci xam waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu yéen waa àdduna di ñaanal ñëpp jàmm comme ñu ngi ko yéene suñu bopp waaw mburin moom ndigal rek di ziar suñ wasila suñ xalifa général Sëriñ Muntaxa waaw di tënku ci moom ci ndigal li rek waa di ziar yi waa gépp wax dëgg yàlla gars yi ay jàmbaar lan kenn ku ci nekk chaque jour yaa ngi dox ci màggal gi donte dajaloonga wala dajaloo yaa ngi sa kër wala yaa ngi daje fépp foo xamante ni ñu ngi fay jànge alxuraan di santale sëriñ bi maanaam màggal gi ndax sëriñ bi moom màggal gi dafa ko amee wun yomb kon nag wax dëgg yàlla fépp fu mu mën a jafee rek man jàpp naa ne fa la màggal gën a ware te wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi dajaloo di jàng xasida même ku munta booloo yaa ngi sa kër di jàng xasida di wàccee alxuraan di santale sëriñ bi bisam bi ndax sëriñ bi moom lam ci waxoon nan ko santale yàlla te santale yàlla moom munta génn ci jàng alxuraan jàng xasida yi wooy ci ndigal ndax ndigal ci la lépp xaj waaw di siyaar nag suñu jëwrin wax dëgg yàlla jëwrin am Cerno tamit màggal gi wax dëgg yàlla moom góorgóorlu na ci bu baax di siyaari gaa yëpp di ñaan fii ci Argentine ak fépp foo xamante ni ab moodu moodu mi ngi fay nekk rek Serigne Saliou fekk la waagi xéewal fekk la fi ak taysir ba doo jaaxle fenn doo jaaxle fii doo jaaxle fële kon nag ñu ñaanal ñëpp wa rahmatulahi taala wa barakatuh jërëjëf waay waaw jërëjëf sëñ bi sëñ ma sëñ Eh, aussi ñu ngi laaj eh, waaw ki nga xam ne sëñ Modou Gueye la lay laaj eh, sa famille yow loo ci xam yow. asalaamaaleykum eh kii sama xarit la sama doom lay te ñu. waxtu tuuti rek loo ci xam yow loo ci see bisimilah alhamdulilah waaw kii sëñ Saliou sëñ Saliou a ngi nii ñu ngi koy ziar di jox sa waay moom mu ci xasida yi macha allah sëñ Saliou ñu ngi lay laaj yow ci màggal bi loo ci xam ak jamono ji mu tombeel jafe-jafe yow jàppale nga jafe-jafe la wala loo jàppe ba ni mu amee. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi ziare mbokk jullit yi mbokk taal bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ba ñu yàlla saa borom fekk la waat bis bii muy bisub Sëriñ Bàmba ñu ngi sant yàlla bu wér nag waaw. ndax maanaam euh, fekkee gi rek dafa doy sant suñ borom kon nag ñu ngi santaat yàlla ci maanaam fekk ñu ko fekkalawaat waaw bis moom wax dëgg yàlla taw fexe na bu baax a baax ndax euh, maam Thierno Amar sunu jëwrin dëgg yàlla moo ñu invité fii ci màggal gi wax dëgg yàlla daal lépp tawfeex la daal suñu baax ndax man dama dama dama mënewut wax daal mais wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax alhamdulilah waaw sant nañ a baax waaw ñu ngi naan daal euh, saa borom fekk nañu ko ayat yu bëree bëri te heure nanga doon fekk ñu fekk Sénégal ñun ñëpp ñu ko teewee ci dëkkub Sëñ Bamba barke Sëñ Bamba sant nañ bu baax a baax jërëjëf ah jox sa wàcc waaw ñu ngi laaj ñi sëñ waa ji sëñ Modou Gueye yow safar bi màggal gi noo gisee ak jamono jii jum tombeel xat-xat bi ñu lay laaj sa xalaat daal ak noo gisee màggal gi nga xam ne Argentine fii kenn ku ne yaa ngi sa kër koo woone damay màggal si ñëwal ma nga màggal si ma rek day bañ danaan man itam dama bëgg a santal Sëñ Tuubaa sama kër yow itam nga am nit ñi ñu lay laaj yow loo ci la màggal gi asalaamaaleykum mbokk ji la mbokk taal bi ñu ngi leen di nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak seen ñi def moom ah, ne ñu ne ñu ngi ñu mbokk li yàlla ñu ngi koy rafetlu fii ñu gaa yi di def am na ci gaa am na solo lool ñu ko sëriñ bi diglu yaakaar naa bu xëyee bu ñu ñëwoon ci dëkk bi kër goo dem rek ngi tey góorgóorlu baax na njàngu ngi ci góorgóorlu bu baax baax te war na ñu koy def ci kër yi moom ñëpp xam nañu moom tëgg nit ñi rek mooy tawat bi ñaan yàlla suñu saafara jeex ci àdduna bi yëpp kenn ku nekk doon na nga nekk suñu borom sotti nga xew defal moom yëpp am na ko ñu ko guddi barke sëriñ ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëm ñëpp tey sant ñëpp tey ñaanal ñëpp am na suñu borom def na am wér ak kàttan ñu jël ci réew mi di ko fa defee barke sëriñ jërëjëf sëñ Modou Gueye ñu lay ziar di la jox sa wàccuwaay waaw ñu ngi ñaan ñu ngi la waaw waaw sëñ bi ñu lay laaj yow borom daaru loo xam ci magal gi wax ci sànni ci kaddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah siyaar bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax ba suñ borom may ak fekk ak tal ak ak sutura lépp ñu mën kaa fekk ci jàmm di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu yaakaar tey ëllëg si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di sant borom daarul muxti suñu yaakaar di sant Cheikh Awa Balla bi nga xam ne amuñu lu dul moom di sant sama ñaari waajur di sant jullit yëpp di xam ne lépp tawféex la ndax heure bi daaw ñu si bëree bari Sénégal leen fekk ren mu fekk fekk leen fii ñu si bëree bëri tey nañ ko doon defee Sénégal lañ ko lañ ko delloo defaat fii mais nag yàlla baax na comme que dañoo nekk ci ci am réew moo xamante ni réewum jàmbur du suñum réew. bar na loo xam si ni sëñuñu ko ndax bu ñoo yoole luwaa bi mais teewut ñu ngi koy dundale comme ñu ngi koy dundale Sénégal dafa ñu lu dul sant Serigne Touba ndax mënuñu kaa fay comme ni ko sëñ Mountakha di waxee chaque jour rek di ko sant jar na sol daal di weñ di ko sol ba mu dagg te taxul nga dab ko ndax kenn du moom te lu ñu am moom moo tax nee na ñu ngi sant bu baax di ñaan jàngoro ji nga xam ne moo fi nekk yàlla na ko Serigne Touba jëlee ñëpp delluwaat seen i suñ ba dafa la ñu xéewal ak sutura dafal ñu tawféex ba bu déwee nañu ñëpp ñu mën kaa fekk si jàmm dem ko suñu njaboot liggéeyal ko sëriñ Touba ca biir dëkk ba Serigne moom foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga kaa liggéeyal ndax Serigne Touba mi ngi fépp waaw ñu ngi sant yàlla bu baax nag di sant ñëpp suñ mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yeeg képp ki wax asadoon laa ilaaha daal ñu ngi lay sant ngir jëmmi sëriñ Touba ndax amuñu lu dul Serigne Touba di sant ñu fi teew ñëpp di ko jiite si jawrin maam Thierno maam Thierno ñaan seen xaarim kan ñoom moo diggee gaa yëpp ndax wax dëgg lu rafet la kenn ko nga defe ko sa kër yow nga fexe ba dajale donte ñett nit la sax di jàngal xuraan di leen berneel màggal foo boo nekkoon Sénégal mënoo ca weesu loolu jàngal xuraan jàng xaseet berneel a demb mii di suñ mbokkum taalibe di taalibe Seex di ko baax waaw wax dëgg yàlla lu jàpp ma a ca amuñ ñu fayaw ñu ngi ñu ngi koy bàyyeeg Seydina Mohamed yàlla ñu ko suñ tubaab fayal bu baax boo xam ne di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ a ñu ngi lay jërëjëf waaw nga xam ne sëñ suñu ndongo bu ñu ngi koy sant di ko gërëm moom itam waaw. waaw sëñ bi kii sëñ Amar la sëñ Amar Diakhoumpa ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay ah sama doom ndey gi nii de waaw ah, soo ba tey yaa ci alxuraan bi mais ñu lay laaj ci màggal gi ñoo ko gisee ak noo ko jàpp noo ko maanaam jàngatee ak jamono ji nga xam ne dañoo toll ci jamono Covid 19. nga xam ne daanaka ñëpp a nekk seen kër comme li tubaab di wax kedaatiku kasa ñëpp a nekk seen kër maanaam te fi ne nii sénégalais boo gis fii ci Argentine ñëpp ku ne yaa ngi koy màggal sa kër te koo woo rek mu ne damaa bëgg a sant la sëñ bi soo mënee ñëw sant la ma sëñ bi nga ñëw koo woo rek loolu lay wax nga xam ne alhamdulilah rabbil Argentine ñëpp a ngi koy màggal ci kër yi waaw ñu lay laaj yow noo gisee ak noo jàppatee gis bi onze billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla julli ci yeneen bi sant sunu ñaari waajur di ñaanal yàlla mbokki taalif fi teew yëpp yàlla faj seen aajo ñun nag um, kaamil bi ñu ngi ci depuis ba ko sëñ bi diglee ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci depuis sëñ bi diglee ba léegi ñu ngi ci kaamil yi ba suñ joon yàlla ñu ngi ci ba tey waaw ndax bi ko sëñ bi ba léegi ñun ñu ngi ci kaamil yi wax dëgg yàlla di ko jàng suba ngoon guddeeg bëccëg xam jot bi lu mu xat-xat yi ñu ngi ko ciy xaj-xajal ci sunu téléphone lañu koy jàng ci yëpp mm-hmm. waaw di sant yàlla bu baax nag lii nag moom tawfeex la wax dëgg yàlla tawfeex bu mag la ndax ku ne xam na ne tey eh, xat yi dëkk bi ak Covid bi ni demee feebar bi tey ne ñëpp ba mun ñoo dajaloo comme na ko nañ ko daan defee wax dëgg yàlla ñoom ñoom jataay boo xam ne comme mën nañ ko defee kenn suñu kër mm-hmm. toog waxtaanee eh, jàng alxuraan waaw loolu tamit lu rafet la ñu ngi koy sant yàlla bu baax bu ñu yàlla boolee tamit si ñu koy jàng at mu jot ñu bokk ci ñuy jàng kaamil yi di ñaan yàlla suñu borom dafa ñu jàmm dafa ñu tawfeex ba lépp lu ñu yëtu yoonu kii ci màggal gi rek mu kaay sunu njort ci barke Cheikhul Khadim ndax te ñun amuñu lu ku tedd ki waaw lépp lépp ci ku tedd ki la moo tax bu ko sëñ Siid Moxtaar eh, sëñ bi diglee ne jàng leen kaamil ba léegi ñu ngi ci boobu léegi ñu ngi ci def suñu kemtu lay kartan di ñaan yàlla yàlla nangoo kaamil ñu fi jàng yëpp waaw di jégalu ñëpp di baal àq ñëpp ndax lii timit tamit ñu ko demee senegal nii dong lañ koy defee toog suñu kër berne taalibe yi jàngal alxuraan jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi loolu lañ koy defee comme nu ko daan defee naka jekk ndax ñun lii ci lañ judd wax dëgg yàlla ñun fañ yaroo moom macha allah lii lañ xam jàng alxuraan su màggal gi ñu defee ko ni berne comme ko ni ñu defee jërëjëf ñu ngi jéglu mbokk taalibe yëpp di ñaanal ñëpp jàmm barki xaalis so jërëjëf sëñ Amar la sa wàccuwaay yi eh, kii suñ jili la suñ jili ñu lay ziar depuis sa suba ba tey yow yaa ngi ci kaamil yi di ci jàng ak xasida yi ñu ngi lay ñaanal di la wax ni yàlla na sëñ taxaw di lay wax ni ak jamono ji nga xam ne Covid bi nii la toll feebar bi ba xam ne Sénégal kenn ku ne Sénégal yu nekk fi yëpp Argentine kenn ku ne yaa ngi koy def sa kër ñu la doon laaj yow loo ci xalaat yow ci màggal sëñ Tuubaa bi ak noo ko jàppee nga xam ne jamono ji fu mu toll. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla bu baax di nuyu ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax sëñ Baara ñoo ngi lay nuyu. di nuyu groupe bi nga àndal yëpp waa Touba Argentine TV gis nañ seen liggéey bi rafet na waaw moom màggal gi moom li ci sëñ bi wax rek waaw moom fu waay man di nekk tamit moom moom nee na moom bis bi bu ñëwee moom képp koo xam ne moom mbégteem sa mbégte la moom na nga ko ci sant yàlla lii ñu def nag moom mooy mooy màggal gi rek waaw maam xëy jàng alxuraan jàng xasida bernde gis nga mbokk taalibe yëpp ñëw na tey bo xoolee fii ci Argentine daanaka mën naa ne na tey ji Argentine donte kër goo xam ne fukki nit a nga fa sax nit ñaa ngi fa dajaloo di jàng alxuraan di jàng xasida di berne xëy na li ci soppeeku mooy comme dañ daan luyee ay saal te xam nga ren comme mbas mee taxit te xam nga dëkkab jàmbur boo fi nekkee tamit maam respecté normes yi da ciy baax waaw moo tax boo gisee tey ñu defee ko nii ci suñuy kër nga gis kër goo xamante ci nii ab limbu ab limbu yama fay nekk ñu toog fa jàng xasida jàng alxuraan salaatu ala nabi bernde waaw loolu rek mooy màggal gi boo xoolee fii ñi nekk Hospepas ñi nekk Morone Buenos Aires gi tey boo xoolee boo ne sere gi tey bëri na lugaar yoo xamante ci ni tey ji koñ boo dem daanaka gis nga ay nit ñoo xam ne mbokki jullit yi mbokki taalibe yoo xamante ci ni ña fa dajaloo di jàng alxuraan waaw te sëñ bi nii rek la ko bëggee waaw di leen sant bu baax nag di leen gërëm seen liggéey bu rafet jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ ji ñu leen ziar di leen bëgg waaw sëñ ko ñu ko baax ba ñu alxuraan ji di ñaanal si mu taxaw ak Mbakke yal na fi yàgg lool te wér di ñaanal li ñu teel daje ñoo ngi ko ñaanal Sëñ Tuubaa yal na ko yóbbaale yëpp bàkk Sëñ Tuubaa di ñaan yal nañu yàlla may tawfeex xéewal ndaje ci ngërëm Sëñ Tuubaa lépp lu ñu fi jàng ci alxuraan xëj na Sëñ Tuubaa yal na ko yàlla eggale yow gën ñoo fayee Sëñ Tuubaa gën ñu ko may ndam ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm dafa ñu sutura dafa ñu sax daal ni bàkk dafa ñu taal bi sax barke Seexul Xadim jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi mu ne yaa di la sa wàccuwaay jërëjëf bismillah Ça